yeesal pencu ndaw réew mi le 31 juillet campagne bi tàmbale na ba mu ngi ci ñaareelu ayu bés bi ci altine tey bii lañu ko tàmbaliwaat gannaaw bi ndoorteel li daje ak tabaski bi ñu bëri jàpp ni xëy na sax li mu tombee ak tabaski beeg sénégalais yi lu ñu ko tal gënoon a tal tabaski bi ak yooyu tax na daal xawul woon a xumb trop waaye li ci mujjee nag ci xumbeel xëy na du loolu lañ ci doon séentu tamit ndax xaw na ànd ak fitna ci boor yëpp dinañ ci ñëw. yaakaar ni woo nañu ci jotaay bi ñoo xam ne xëy na yey nañu ci gindi ñu yey nañu pour wax xam-xam yey nañu pour jàngatal ñu démb ak tey jàngat démb ak tey mën na doon jàngatu fekkee mën na doon aussi jàngatu taarix ma mbégte di fi dalal ñu njëkk a jox cër suñu mag man suma mag la wax dëgg fa yàlla maa mbégte vraiment ci dalal ko ci jotaay bi ajaa jatu Diatou Cissé dalal jàmm. merci beaucoup Ablaye ma am mbégte bu baax tamit. ñëw wuy si sama rakk boo xam ne dafa ma naw dafa ma respecté di ma ko won waxtu bu ne. mais xam naa loolu du man rek ci corporation bi ak ci liggéey bi ak ci jaar-jaar ñoom mbégte aussi di fi dalal docteur Lamine Sarr lamin xëy na euh, peut-être guléet la ci suñu jotaay bii ñu lay ñaanal mu doon ndoorteel ak njëlbeen bu bees. Mm-hmm. xam-xam moo tax ñu woo la fii docteur en sciences politiques di enseignant ci université virtuelle du Sénégal dalal jàmm. dëgg la dëgg la jërëjëf waay Ablaye maa ngi lay sant di la gërëm di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi di nuyu suñu suñu mag jàkk ko seetaan aussi si télé bi di ko déglu di gëstu xam-xamam euh, gëm naa ne incha allah dinañ fi dinañ fi wax lu loo xam te ne dinañ ñu jëriñ jëriñ dëkk bi jëriñ réew mi donc ma ngi lay ma ngi aussi si invitation bi mm. ndax euh, bëri na Sénégal ñoo xamante ne xëy na mënoon nañ fi toog donc boo toogee ba ma ba nga invité ma ngi si ma ngi la siy gërëm di leen baalu ak di si tabaski bi ñu génn yàlla def jàmm si réew mi. jërëjëf docteur Lamine Sarr dinañ waxtaanee campagne électorale bi ni ma ko waxee dinañu waxtaanee aussi leneen loo xam ne fës na diggante démb ak tey mu soxal njàng mu kawe mi. Université Gaston Berger defe naa ne ku ne xam na li fa xew ndax am na jaxasoo ba tax kilifay université bi jël nañu dogal tëj campus social bi campus sociale boo ko déggee mooy. Mm-hmm. fi nga xam ne fa lay ndongo yi dëkkee te xëy na boo amatul foo dëkk. njàng ma pour mu wéy pour ñu waajal examen yi luy jafe lay doon gis nañu communiqué université Alioune Diop bu Bambey moom it naka noonu jël nañu dogal tëj campus sociale bi loolu dañ ko jàngat xool ndax lu mën a dox la ci bu jàng waree am examen waree am ci contexte boo xam ne it ñi nga xam ne ñu ngi topp enseignement supérieur ñu ngi wax ni xëy na mën nañoo dem ba ci invalider sax année bi ci yenn faculté yi yenn UFR yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi waaye jaajatu balaa ñuy sori campagne bi est-ce que campagne électorale bi ñu nekk nii ndax jot na laa àmbale xam naa ne tabaski bi aussi ñëpp ngi ci woon. mais bi ñu ci génnee est-ce que li fi xewagum jot na laa ambale ba nga topp ko. Euh, bu ñu waxee dëgg rek euh, par rapport ak campagne yi ma tàmmoon man di dund bi moom ni ñuy waxee xorom si daal euh, des na tuuti. peut-être aussi li mu nekk huit coalitions la parce que on est allé avec des coalitions euh, nekkul comme yi nga doon xam ne dañuy am x parti politique ku nekk ñëw ak stylam ak ay façon am ak ay stratégie ay forme de marketing politique am ñëw mu gën a am diversité je pense que coalition bi sax dafa xaw a uniformiser affaire yi et j'ai comme l'impression ko ku nekk peut-être même day yërndu moroomam c'est les c'est la même stratégie qui est déployée c'est les caravanes ces visites de proximité auprès des leaders d'opinion auprès des leaders religieux donc euh, l'un dans l'autre ça nous plonge quand même dans une certaine monotonie pour ce qui me concerne xanaa li ciy feeñ rek Euh, te peut-être ñun xaaruñu leen woon foofu euh, mooy coow li violence bi ak fitna bi quand même euh, commencé jóg loolu moom attiré na ci sama sama sama attention bu baax mais daal ay la yéwén campagne daan na gën a xumb daan na gën a xumb ci ci slogan yi nit yi doon utiliser mm-hmm. tout le monde se souvient monsieur Forage madame Moulin qui mm-hmm. avait fait tilt les euh, euh, Serigne Diop Sadakta tout ça voilà ba bi rajax rajax aussi mi ngi noonu fii toj na rajax voilà il manque quand même si campagne bi fi mu tolloogoon un peu de piquant pour euh, bayre daal maanaam bayre bi moom pour le moment des na pour man des na bu baax a baax a baax yaa ngi wax am na fu ñu leen xarewul woon violence bi am na ñoo xam ne dañu la naan mi moo campagne Sénégal mhm. noonu lay mës di demee tout le temps fitna bi xay na dañu ko doon wattu mais ils n'ont pas évité peut-être euh, violence yooyu nga xam ne nii moom mooy rax toujours ci campagne électorale ba kenn quand di ci rot bari na eggaguñu foofu ci campagne bi mais fitna bi bari na waaw c'est vrai que euh, avec le recul campagne électorale bu ñu fi mës a def rek am na ay problème je me rappelle am na benn cortège président Wade à l'époque je pense que à l'entrée de Nande y a eu des problèmes des échauffourées élection yi moom dafa mës a ànd effectivement ak euh, cow mais tant que c'est une violence contenue maanaam loo xam ne comme ni nga ko waxee yeggul ci mhm. bakkan root xadar politique waaw waaw mais quand même euh, bu ñu perdre de vue peut-être euh, sama Ousmane la Lamine Lamine dina ci gën a ñëw euh, je pense que tamit y avait c'était assez volatile quand même avant ñuy dem ci campagne bi sentiroon nañu benn crispation bu ngande ngande ngande ngande ngande euh, le parti au pouvoir vis-à-vis de l'opposition parce que dañu ko ñëw ci campagne bi tamit dans un contexte de rupture presque totale des dialogues mmh. des dialogues euh, des des des des acteurs euh, politiques mmh. donc je pense que quelque part ku nekk quelque part peut-être yaa ngi doon tëkku sa moroom le pouvoir le camp du pouvoir est dans son rôle Euh, je pense que très tôt ils ont appelé ne waaw nañu def yëpp si jàmm daal même si bon Macky euh, égal à lui-même a fait un peu de menace en disant que l'État veillera sur la sécurité on laissera faire mais quand même ce qui est important dans son discours et le discours de son camp c'est que très tôt vraiment ils ont montré euh, vraiment carte blanche pour quand même que la campagne puisse se passer autour des programmes autour des idées autour des projets plutôt que euh, xeex euh, ak euh, xuloo le seul cas que j'ai appris je pense que c'est dans le sud euh, quelqu'un qui qui aurait tiré euh, sur mmh. des enfants ça c'est des dérapages euh, graves j'ai vu aujourd'hui aussi à Kaolack aussi il a failli avoir un clash mais Khalifa Sall et Mariama Sarr je pense que on fait preuve d'une grande maturité politique wax xale yi ñu dal Euh, je de ce point de vue effectivement loolu moom mën naa mën naa dalalagoon suñu xel. foog na njoo sante ak. tokkaa sante la peut-être tant que ma ngi fay yem rek alhamdulilah. am na kay cas yoo xam ne comme gis nañ ko te mu positif ñu fàttali ko aussi je pense que à biram Birame Souleye Diop ak Abdou Mbow deux coali deux des principales mmh. coalitions. daje saafonte ku nekk jàll dem sa yoon je pense que c'était important il me semble aussi que Abdourahmane Diouf bu awalee ak euh, Ousmane Sonko ak ñoom ci daje nañu mm-hmm. aussi mm-hmm. mu xew ci jàmm docteur Lamine Sarr est-ce que euh, campagne bi am na loo xam ne mën nañ ko ci jàpp ci cas d'école ci lu ñu war a mën a documenter pour l'histoire mm-hmm. est-ce que réussir na yow emballé la en tant que fait politique waaw damay balaa damay damay am premièrement damay am première lecture comme bu bu bu bu. am bu jatu am. Mhm. maanaam dafa am lu des ci campagne bi. dafa am mhm. loo xamante ne campagne yi daf ko doon am avant depuis boo jëlee campagne yu 2000 euh, même législative yi ñëw avant même campagne législative yu 2007 yi yooyu depuis lors dafa am loo xamante ne daf am si si. apport bi nga xamante ne nit ñi dañ ko jéem a am bopp par rapport ak mhm. population bi mais bii dafa xaw a des tuuti li ko waral nag xëy na buñ ci gëstoo tuuti dinañ dinañ ci xaw a xam tuuti mais man li nga xamante ne moo ma gën a interpellé ci campagne bi mooy premièrement dafa di comme ñëpp ko xamee dafa doon campagne boo xamante ne dafay dafa jiitu campagne présidentielle. Mhm. te campagne législative bu jiitoo campagne présidentielle dafay xaw a am lu muy lu muy nduru ci population bi nit ñi seen bopp ñu ngi voté député yi mais seen xel yëpp ñoo ngi ci présidentielle. Mhm. donc di coup même politiciens yi même nit ñi mun nga ne ñoo ngi dem di voté ji. xëy na loolu tamit tax na ba législative yi ni amul caxka bi mu waroon am mais ñëpp ñu ngi calculer présidentielle yi di ñëw donc effort yi nit ñi waroon def si programme politique yi si engagement bi nit ñi danañ ko def nii rek mais du mott dafay mel ni préparation la échauffement la pour nit ñi pour présidentielle yi alors que législative dafa dafa am importance bu rëy suñu réew dafa war a dëggal rôle ak euh, euh, euh, kilifteef ak cëru assemblée nationale loolu nag des fois suñu politiciens sax dañ koy xaw a réere ba nga xamante ne ni mooy liñ si wax sànq mbirum violence beeg mbirum euh, euh, euh, saagante yi parfois nga xamante ne moom lañu ñu amoon avant avant campagne bi di commencer donc loolu yëpp aussi dañ si war a gëstu leneen li ma bëgg a dolli mooy tension bi ñu amoon avant yaa yaa quelques semaines juste bi ñuy teree manifestation yi damay partage li jotu wax maanaam dafa xaw a wàcc xëy na aussi loolu foofu la. aspect social amee euh, euh, euh, important si réew xëy na tabaski bi ak la fait que ñu bëri si Sénégal en particulier Dakar dañoo génn dakaar dem seen réew loolu tamit bokk na xëy na si li wàññi tension bi hmm. de telle sorte que nit ñi seen concentration yëpp si tabaski bi la ak ni ñuy ñëwaatee Dakar donc loolu yëpp bokk na si li tax te mënuñu ko bañ a jël en compte ci li tax xëy na tension bi politique fi ñu toll nii gën a wàcc waaye campagne bi amoon na avis xëy na dinañ si gën a waxtaan mënoon na gën a am envergure mhm. politiciens yi mënoon ni gën a teg ay programme politique yoo xam ne nit ñi bu ñu xoolee programme yi li ñu xool tànn seen i candidat en fonction des programmes mhm. mais pour l'instant mais dama gis benn acteur majeur société civile mhm. Birahim Seck pour ne pas le nommer mu xëy ne campagne bi saful xorom ci ni mu ko waxee <laughs> gisuñu voilà mu ngi nii mu ne la campagne pour les législatives 2022 est pauvre en proposition de réforme de consolidation de la démocratie de transparence maanaam moom ni mu ko gisee déggu fi dara loo xam ne ni ci lu jëm ci campagne la am ku ko ne ma yow moo foo nekkoon parce que campagne campagne yi mosuñu fee dégg programme du programme xumbeel la comme ni ñu koy waxee ak yooyu mais programme yi c'est mu génn. Mhm. rawatina nag campagne wu député souvent ni ñi confondre ko ak programme présidentiel. nga dégg koo xam ne danaan bu ma faloo dinaa def lii fàtte ni moom peut-être voté loi rek la mën. Mhm. xëy na mënul defal nit tali mënul defal nit hôpital mënul mhm. defal nit leneen ak leneen. moom dafa nekk ci idéali idéaliser campagne électorale walla wala ci taarix euh, ci bu campagne gën na ko conforme à la réalité am déet. waaw mën nañ mën nañ si li mu wax mën nañ si mën nañ ci xaw a d'accord ak moom dans le sens euh, campagne électorale quand boo xoolee si histoire politique u Sénégal depuis bi ñu bi ñu amee suñu indépendance ba tey ba ba ba si alternance 2000 euh, ba si alternance 2012 am na si ay campagnes yoo xam ne même campagne législative législative yoo xam ne nit ñi proposé nañ population bi dara ba nit ñi mën a jàpp ne kii bu faloo nee na lii lay def loolu tamit am na loolu moom. léegi nag bu fekkante si loolu nga sikkandiku nga sikkandiku pardon effectivement mun nga jàpp ne campagne bi ñu am nii wax dëgg yàlla des na damay joxe exemple rek fi ñu toll nii li gën a soxal sénégalais fi ñu toll nii moom mooy diwliñ beeg ceeb bi ak ñi si des ni mu yokkoo maanaam li tubaab di wax inflation mhm. léegi nag bi campagne bi commencé ba tey amul kenn si coalition yi wala amul benn parlementaire boo sortant wala koo xam te ne dafay bëgg a doon député bu ne ñun bu ñu faloo inflation bi kat nii lañ ko bëgg a saafaraa. Mhm. te nit ñi loolu lañ soxla. te nit ñi loolu lañ soxla léegi exemple yooyu xëy na dinañ si gën a ñëwaat ci wàllum mhm. éducation yooyu. exemple yooyu la nit ñi xëy na moom si loolu la sukkandiku pour wax effectivement am na loo xamante ne waxuñu ko si inflation bi waxuñu ko si naka la ñu mën a doxee mhm. suñu démocratie. naka la ñuy consolider justice. yëpp déggaguñu ko certes du rôle lu député. waaye député am na rôle bu important bi mu am moom mooy mooy voter ay loi te loolu mooy doxal réew président am na importance suñu réew parce que modèle présidentiel lañu am waaye député am na importance loolu tamit laay daanelee mooy dafa dafay wone li nga xamante ne ñun Sénégalais xaw nañ ko dese tuuti xaw nga ko pro sànq si rôle ak euh, euh, métier wu député maanaam député tey ji bu ñu la falee lan mooy sa warugar lan mooy sa position par rapport ak population bi mënoo lépp doo def lépp donc donc am na lu la war am na fula la loi tënk am nga loo war a def am nga loo warul def. Mhm. am nga ay relation ak président am nga ay relation ak justice. am nga ay relation ak société civile loolu yëpp dañ ko war a leer ba mu leer si bopp askan yi leer si bopp ñiy candidat parce que des fois nga dégg wax ba mu wóolu ma ne nii xëy na xëy na xamuñu seen rôle donc loolu yëpp dafa bokk si li tax xëy na euh, jugement bi mu am moom Bamba mun nañ ko mun nañ ko mun nañ ko partager et puis je pense que tamit euh, pour yokk ci li Lamine wax mhm. euh, campagne bi dès le débat sur cohabitation pas cohabitation daf ko mhm. capturer tu as le camp du pouvoir qui dit bu ñu leen bàyyi ñu ñëw contrôler assemblée parce que bu ñu ñëwee assemblée contrôler ñu institution yëpp dañuy arrêté bien sur que c'est un mhm. abus c'est fait à dessein mais nañ leen nañu fexe ba jox président majorité mu mën a yeggale yéeneem ak mébét bi ci mhm. réew mi l'autre camp disent nañ ko fekk assemblée nationale nañu contrôler assemblée nationale teg ko pression génn xelam ci troisième mandat. donc je pense que polari bi polarisation boobu moo indi. Euh, talatuñu dara talatuñu wax programme ku nekk. sa débat yëpp mooy le contrôle de l' assemblée nationale mais li Lamine wax tamit dëgg la te peut ñun électoral bi. Mhm. électorat wala l'opinion ñoo si bàyyi xel. mais kan moo projet politique mënul mhm. nekk rek. Mhm. contrôler l'Assemblée nationale, que ce soit du camp du pouvoir que du camp de l'opposition. Comme disent les, les, les, les Anglais, nous, Assemblée nationale, après so what loolu bu ñu ñëwee ba contrôler assembler nationale wala ñëw ku ci contrôler assemblée nationale que ce soit Benno wala yeneen coalition yi dañ ñu war a wax période de cohabitation boobu lan lañ ñuy indil ñun def fondamental ci suñu dundin ci suñu nekkin lan lañ lan mooy projet bi mais tourner le débat autour de nañu contrôler rek assembler nationale te waxuñu exactement bu ñu toogee lan la ñuy def effectivement loolu daf ci am loo xam ne xaw na manqué léegi nag nañ leen ko baaxee aussi peut-être ñu ngi dugg ci deuxième semaine bi. Mhm. peut-être ils vont commencer. échauffement beeg euh, nattante bi ku ne woon sa doo moroom fi nga toll peut-être loolu jeex na. mais kan moo am ñaari coalition enfin ñaari coalition huit coalition yi nga xam ne ñoo nekk en compétition parce que faut pas que ñu fàtte ni quand juróom-ñetti. liste ñoo nekk en mhm. en compétition. Mhm. dañuy wax Benno Yewwi mais am na Aar am na les serviteurs. am na yeneen ak yeneen ak yeneen. vraiment. kan moom intérêt def élection bi comme référendum c'est-à-dire pour ou contre Macky pratiquement noonu la ko euh, coalition Yewwi Askan ni par exemple bindee ci ni nga xam ne nii ci noonu la ñuy dem comme ni nga ko waxee léegi. Mhm. ci ne jox leen ñu majorité pour que ñu mën a. Mhm. gàllankoor ay mbébétam. Mhm. kan moo ci am intérêt est-ce que pouvoir bi ci boppam intérêt am la ci ne référendum la renforcer leen président walla ñee di wax ni jox leen ñu pour ñu gàllankoor ay projet je pense que ñoom ñëpp ku ci nekk. am nga ci intérêt. Mhm. ku ci nekk euh, am nga ci intérêt parce que quand même contrôler assemblée nationale c'est pas c'est pas rien euh, pour opposant yi challenge bu ngande la mais pour le pouvoir aussi se rassurer dans lu mu def ses réalisations se rassurer se sentir sentir le bon bout et que comme ni mu ko waxee tout à l'heure quand même qu'on le veuille ou pas c'est un test un peu vers euh, la 2024. Euh, je pense que c'est c'est c'est assez euh, challenging pour pouvoir bi ak pour opposition bi yëpp que ñu nekk ci un peu ce, ce débat sur euh, la cohabitation. mais parce que loolu élection bu ñëw élection bu ñëw dañu koy wax parce que local yi bi ñuy bi muy jub si dañoo noonu ah local yi moom test la boo xam ne buñ ci jógee danañ war a xam ne yëf yi war a tëddee évidemment local yi. génn nañ ci ku nekk nee na yow yaa gagné. waaw mais xam nga finalement génn nañ ci élection boo mm. xam ne. camp bu ne jàpp na ni moom moo. c'est de bonne guerre <laughs> voilà <laughs> ban jàngat lañ ci am. waaw mais yi sax jàngat bi ñu ciy war a jàngat jàngat yi war yi ci war a dafa bari mais defuñu ko benn jàngat bi mooy euh, muy parti opposition natt nañ seen bopp si li ñu li ñuy tuddee les grande ville ba xam ne am nañ fa base électorale. Mhm. donc am nañ départ li li gars yi wax départ am nañ fa départ. beneen lecture bi nga xamante ne nit ñi amuñu ko te dañ ko war a am parce que mun na am moo na a nekk ci Sénégal si at yi di ñëw. mooy dañu am ay parti yoo xamante ne mooy li ñuy tuddee euh, régionalisation des partis politiques ay parti politiques yoo xam ne te mm-hmm. exemple bi gën a flagrant mooy euh, Kaolack ay parti politique yoo xam ne wala ay mouvement politique yoo xam ne si benn bërëb la ñuy nekk mm-hmm. Kaolack rek par exemple euh, Mbuub Kaolack moo ko soxal comme Serigne Mbuub comme amul beneen candidat si beneen région mm-hmm. moom Kaolack moo ko soxal te léegi te façon politique boobu nekku Sénégal beesul fii Euh, boo demee si dëkk yi ñuy wax les pays anglo-saxons ay Canada Angleterre yooyu noonu am nañ ko fa day ay parti yoo xam ne parti pour benn région rek la ñoom loolu moo mhm. leen soxal mhm. Mhm. léegi nag Sénégal local yi li mu joxe mooy dafa bëri ay candidats ay parti yoo xam ne loolu la loolu si lool lañu nekkoon léegi nag plus ñuy dem nag parti yi mag yi wala coalition yi mag yi nit ñi duñ dem ba reconnaître si parti yooyu plus ñu dem nit ñooñu nag di dem di bokk ji si parti régionaux yooyu après loolu day façonné complètement politiku Sénégal loolu dañ si war a bàyyi xel parti politique yu mag yi tey jii nii parti politique yu mag yi historique yi Sénégal yu si bëri dañu en difficulté parti socialiste bon mu ngi dugg si coalition depuis mm. depuis mm. maintenant 12 ans PDS même chose euh, parti yu mag ay AFP yooyu yëpp ñoo ngi si ay coalition parce que ñoom seen bopp dañu am ay difficulté depuis des dizaines d'années mm-hmm. yoo xamante ne saafarawuñu ko ah, buñ ci jugaatul si élection législative yi di ñëw mm. ak présidentielle yi di ñëw ba yeneen local wala législative ñëwaat nit ñi dañuy dem si parti yi nga xamante ne si ay bërëb la ñuy nekk man sama parti euh, maanaam parti euh, su ma buggee de publicité tuuti ma ne euh, sama bërëb joof yoor lay mm. lay sukkandiku ñun par foofu rek la ñuy liggéey. soxla nañu beneen candidat Lamine ñu jaru ñuy gis naa ni yaa ngi raame en réalité. <laughs> non mais tudd Kaolack tudd Diofior. lan ngay moytoo est-ce que par exemple leader. bu am parti. am base. Ziguinchor pour ne pas le nommer est-ce que c'est un problème par mhm. exemple comme cas bi ni c'est présent mhm. te naa ni yaa ngi koy moytu rek ci wax bi <laughs> mais le fait que Ousmane Sonko am base base boo xam ne Ziguinchor la mhm. mu di nekk maire de Ziguinchor est-ce que c'est un problème pour le pays wala ci échiquier politique bi non pas forcément pas forcément li ma yaakaar sax mooy Euh, euh, au contraire force la sax maanaam parti politique wala leader politique dafa war a am base. base c'est ça base waaw donc Ousmane Sonko am base à Ziguinchor. Mm-hmm. wala mu am ko à Kolda wala wala à Saint-Louis loolu lu baax la. Euh, président Macky Sall am base politique am feneen loolu tamit lu baax la leader dafa am base politique li ñu war a moytu mooy ñu comme ni nga ko waxee sànq ñu fexe ba bërëb bu nekk am sa parti wala say yenn parti yoo xamante ne foofu ngeen nekk. parce que loolu bu amee équilibre rek lu baax la si réew. waaye risque bi moom mooy bu déborder rek. mooy juri façon régionalisation façon nationalisme boo xam ne baaxul ci réew suñu réew yi antanagul loolu. Mm-hmm. parce que li ñuy fàtte mooy Sénégal comme dëkk yi bëri yu nekk si ci ci Afrique euh, suñu suñuy culture suñuy société yu yàgg la. Mm-hmm. waaye suñuy état yàggut. 1960 mm-hmm. rek la boo ko xoolee si si si histoire yàggut. waaye suñuy société suñuy culture suñuy tradition suñuy suñu démb yàgg na loolu boo remonté comme ni ko gars di waxee ba Égypte sax euh, yàgg na mm-hmm. waaye fi ñu toll nii suñuy réew dafa laaj consolidation mm-hmm. parce que yàggul mm-hmm. consolidation boobu nag parti politique yi dañ si am cër bu rëy mais malheureusement daf si bëri ñoo xamante ne si sama gis gi si li ñuy si li ñuy si ñu li ñu mën a liiragum amaguñu perception boobu donc dañ nekk si genre politique boo xamante ne ne on est dans l'urgence wala on la conquête du pouvoir tout de mais bu ñu jotee pouvoir bi comme ni ko jotoo waxee sànq lan lañ ciy def loolu nag la ñu war a consolider si suñuy parti ak jot naka la ñuy moytoo féetale bi moomee ci xeet ci maa dëkk mhm. fii maa moom fii mhm. samay mbokk ba ci mhm. sax dañu ko gis ci mujjanteel gi ci événement épisode yu dramatique yi fi am ci xeet féetewoo li nga xam ni moom moo fi nekk waaw euh, li ma bëgg a wax rapidement mooy ne base affective moom daf fi mës a am. Mhm. ñëpp xam nañ ne Robert Sagna pendant longtemps. Mhm. Mhm. Ziguinchor Casamance mooy base affective am comme Djiboka dans le Jolof et cetera et ça n'a jamais posé un problème maintenant effectivement débat bi ñëw ci parti politique yi je pense que euh, germe yi lu ko wund mi ngi fi woon. ça fait longtemps sa chemine vers le communautarisme léegi à partir de sonnerie téléphone. xam nga nit ki. fan la bokk xam nga ndax murit la xam nga ndax tiijaan la xam nga ndax ndax catholique la wala musulman la yooyu am fi woon soo duggee si benn bureau même dans l'administration tu peux trois photos de guides religieux différents dans même bureau ku nekk sa ginnaaw ordinateur c'est des formes on ne le mais c'est des formes quand même d'identification qui peut facilement mener au communautarisme donc je pense que loolu débat boobu yàgg na toog mais xëy na spécificité Sénégal la. ci oui mais tant que tant que c'est mu touché li ñu bokk ñun ñëpp. Mhm. mooy bokk nekk sénégalais. di wuyoo sénégalais bokk suuf bu ñu dëkk. Mhm. bu njariñu dëkk bi yëpp soxal ñëpp. amul problème waaw mais léegi bu fekkee tamit mhm. nag et c'est ça dramatique ñun ñëpp d'accord nañ ko dëkk yi fi am problème ethnique. problème euh, de, de, de communautarisme. Mmh. Très souvent, et ça c'est les, les, les, hommes politiques, mmh. ça c'est le cas de l'Afrique centrale par mm. exemple, les hommes politiques très souvent mm. ont dañuy laal instinct yooyu dañuy mm. laal question bu sensible boobu parce que dans le souci de racoler le maximum de partisans mm-hmm. dans le souci pour susciter affection seeni nit ak yooyu fibre boobu dañ koy jouer ba mu ba mu ëpp lu fi daan am la hein c'est pas un problème man ça ne me pose pas un problème vraiment c'est tout à fait légitime et normal que Sonko soit aimé quand même des Casamançais ça ne veut pas dire que les Casamançais n'aiment pas Macky Sall ça ne veut pas dire les Casamançais n'aiment pas man c'est ça ma lecture de la situation maintenant nag il faut ñu éviter les demo les démons mooy effectivement bëgg a ci base affective yooyu pour bëgg a xar bëgg a tasaare Sénégal je pense que loolu moom maanaam fola boo xam ne kenn kenn du ci gañe mi ngi mel ni dañuy fowee rek almet euh, ci ci ci ci ñax bu wow bu tàkkee ñëpp lay yóbbaale loolu moom dañ ci war a dellu ginnaaw bu baax a baax a baax point de crispation yi xëy na bu weesoo problème mu xeeteeg problème identitaire yi te ñu juñ ko waxtaanee ko defe naa ni am na kilifa gu ne moom bu sañoon ñu aj débat boobu euh, cest à bu amee ko ko wax ñu bàyyee ko ko bañ ci débattre mm, ndax mu bañ a ajjee ko mm. Mamadou Diop Decroix la def contribution mu ne bu sañoon débat boobu du ko suul mais nañu ko aj ngir bañ koo xóotal kon defe naa ni wax nañ ci liñ ci yax mun nañu koo teg mm. mais point de crispation yi bëri na ba beneen bi feeñ ci campagne bi dem na ba ci diggante om politique yi ak média mu mel ni ki nag du lu bees parce que média tey amul média boo xam ne amul fuñ la dëkkal amul homme politique ci moment bi nga xam ne fa lay fa toll du nekk diw daf ma contre wala diw man la àndal ba ci jatu bu nit ñi di fàttaliku defe naa alternance bi njëkk ci Sénégal 2000 mhm. ci ñi ñi ko fekkee wala ñi ko jàng am Abdoulaye bi mu faloo mhm. Mhm. gannaaw bu mu remercier ay militants presse bi la ñu ko remercier parce que quand même defe naa joué woon nañ ci rôle bu am solo mais mujj naa juuyoo ak presse bi de telle sort que yaakaar na ni moom rek la ñu contre lan mooy problème bi diggante homme politique ak média après nag na ñëw ci fee bi nga xam ne nii moo xew ci média yi ci seppi micro ba ci ñii waruñu fee nekk ñee rek waxal te du lu bees nag. Mhm. mais lan moo tax diggante homme politique ak média mu demee noonu ba conviction du moment rek la ñëpp di doxee. waaw man dama yaakaar ne média yi enjeu lañu pour les hommes politiques maanaam lu ñu yootu la. Mhm. parce que ñun média yi dañuy jottali seen baat. dañuy jottali seen gis-gis donc enjeu la d'ailleurs ñëpp d'accord nañ ne manifestation bu am ci espace public ci askan bi rek parmi critères yi tax ñu ne manifestation bi de réussir na am na succès mm. médias yi relayer nañ ko par ñu wax ko te loolu du Sénégal rek euh, dëkk yëpp la manifestation moom ci li tax ñu ne réussir na média yi jot nañ ci tasaare nañ ko ci critère wala indicateur manifestation bu réussir si la am loolu ça c'est un deuxièmement aussi peut-être amul peut-être c'est un débat aussi éculé ñun danoo am prétention que ñun quatrième pouvoir la ñëpp xam nañ ne ay pouvoir li olof yi naan ñaari kuy du ñu nekkandoo ci mbalka loolu tamit am na c'est un pouvoir peut-être contre un pouvoir est-ce qu'on est quatrième pouvoir ou pas mais li ma gëm mooy ne effectivement suñu liggéey am na ci impact parce que am na fii ci dëkk bi ay homme politique yoo xam ne wala ay nit tout ay citoyen médias yi presque ñoo leen tabax ñoo leen imposer dans le débat ñoo relayer seen baat teg leen teg leen ci kanamu askan bi loolu la le les produits médiatiques xam nga loolu am na léegi nag je pense que tamit quelque part c'est légitime que tous les blocs politiques ku nekk da ngay bëgg a contrôler médias yi à façon ñenn ñi par la subordination ñenn ñi dañ lay vilipender ñenn ñi mhm. dañ lay jéem a corrompre te cor corruption bi du sax toujours joxe xaalis hein mhm. euh, mooy maara day taal yi mhm. maara day taal yi am nga dëj balaa ngay gersu sax homme politique ñëw jëkk fa mhm. sax sa waa famille c'est des formes de proximité yu ñuy cultiver yoo xam ne yow journaliste bi wala nitu média bi boo dëgërul tuuti rek dalay lay tënk aussi parce que suñu culture ak suñu société moo tëddee noonu aussi nit da nga koy euh, koo rus ragal nga ko te nit yenn acte yi bu ko defee naamte yow sax da lay gêner loolu da nga ko ko da nga ko koy ruse bu loolu jeexee euh, je ne sais pas ndax damay anticiper ci. oui bien sûr fait bi nga xam ne nii moom moo fi nekk. lii di ñëw ci seppi ci jàpp ni euh, xëy na bañ leen soxlaa nekkuñu fii te pourtant du lu bees. Mm-hmm, du lu bees est-ce que organe yi ñooy problème wala homme politique ñooy problème wala ñaar yëpp la. man xam nga lan laa comprendre. Mm-hmm. am naa sympathie ak solidarité bu baax si sama confrère journaliste ak sama euh, euh, confrère journaliste RTS yi particulièrement ñi nekkoon si terrain bi mais man li ma xamul yokk bi ñu yokk affaire boobu ni xale yi di wax taw yi bi ñu taw yi affaire boobu man daf ma jaaxal effectivement loolu yàgg yàgg na fi euh, mhm. boo xoolee Ablaye Wade bi mu ñëwee pouvoir première DG Mhm. premier DG avant même le premier conseil des ministres je crois DG bi ñu fi jëkk a relevé Babacar mhm. Diagne la tout à fait Moustapha Niass fii la doon wax yow Babacar Diagne yow laay waxal bu ñu faloo boo yeboo nga takk sa ay bagages xam nga loolu loolu am na fi euh, donc je pense que peut-être léegi réseaux sociaux yi ak yooyu moo tax peut-être Sonko li mu def nii am résonance bu ngande boobu mais euh, c'est un acte de refus c'est sa façon à lui peut-être de montrer que ne d'accordul man je pense loolu dañ ko war a dépasser parce que bu fekkee Sonko dafa bëggoon buzz comme ni xale yi di wax finalement résonance bi ñu ko jox sax moo maye buzz boobu <laughs> man tant que euh, on n'a pas Euh, agresser des Violenter. journalistes tant qu'on ne les a pas violentés tant qu'on n'a pas détruit leur matériel je ne dis pas que j'accepte mais je dis que on peut on, on peut passer il ne faut pas que loolu occulter pour man débat de fond bi RTS encore en tant que institution euh, histoire am daf ko dabaat euh, Ablaye Wade euh, sikk nañu Macky Sall sikk nañu bi mu nekkee candidat Sonko sikk nañu ñeneen sikk nañu parce que effectivement wax ko tamit de RTS dafa am benn problème mu tamit déficit vraiment de pluralisme. mais gis nga médias yi euh, jatu mhm. souvent. nit ñi dañ naan comme ñëpp ma sikk ça veut dire que man maa nekk ci équilibre RTS parce que day jàpp ni yoon bi mu nekk mooy yoonam ci service public nekk au service de ku nekk ci nguur gi. Mm, mm, mm. est-ce que lu ñu mën assumer la ñoom. par waaw man je pense parce que euh, parfois je suis tellement désolée parce que pour man en termes d'offre programmatique RTS ay programme yu baax la am. Mhm. lenn moo ñëw parasité RTS mooy 30 minutes yooyu yu journal télévisé bi mhm. moo ñëw impacté parce que qu'on le veuille ou pas foofu mooy presque conçu foofu la nit ñi euh, percevoir comme un espace finalement de de de de, de propagande mhm. le journal télévisé fanweeri minutes la bu fekkee fanweeri minutes yi ñaar fukki minutes yëpp dañ ko jox quand même euh, pouvoir bi li ciy des pour les autres activités de la société civile et cetera espace ba sax dafa bareetul man je pense que mënoon nañu ubbi d'autres créneaux et c'est un recul moi jeune reporter je sais que je couvrais je me rappelle très bien il m'est arrivé très souvent de couvrir des activités des jàllarbistes les landing savané avec son fameux carton mmh. rouge fii Colobane parc Amazou dama fa daan dem une fois dans des des calots bleus Euh, moom presque manqué de respect. parce que dama doon dem mhm. di ñu benn meetingu PDS face je pense que tout en montrant les les les les les dans son rôle de service public am na effectivement montré un peu les réalisations au profit du pays les politiques publiques. ñu disséminer ko comprendre ko loolu nangul nañ ko ko parce que RTS bu ko bàyyee day génn sa mission de service public mais à côté de ça je pense que il y a de la euh, il y a une plage pour que ñeneen ñi wax et je pense que même c'est ça qui aurait rendu plus crédible le PUDC a fait par exemple une piste dans le patelin d'un opposant politique moi je pense que c'est bien de montrer qu'il y a la piste aussi et de laisser l'opposant politique apprécier ou réagir euh, je pense que ça aurait donné euh, plus d'équilibre débat bi nag euh, man je pense que c'est pas les directeurs de la RTS quelque part pour moi c'est les gouvernements successifs parce que Macky Sall bu ko buggul mhm. du am donc je pense que tous les pouvoirs comme ni ma waxoon sànq da leen di rassurer ñu contrôler ñeneen ñi ko amul organiser nañu si réseaux sociaux ak yooyu yooyu tamit ubbi seeni fenêtre pour ñoom tamit di communiquer bi ñuy réviser code de la presse bi loolu la ñu waxoon dañu ne léegi les médias man je ne peux pas dire de médias d'État ça m'a posé mhm. toujours un hiatus à la RTS parce que dans mon entendement je travaille pour un média de service public mais je sais que bi ñuy voté code de la presse bi par exemple bi ñuy travailler si projet bi ñun li ñu jàppoon professionnels yi ak société civile bi ak comité scientifique bi yépp dañu ne woon léegi les médias dits de service public dañ koy def appel à candidature pour bañ a tëj sax président ci benn choix mhm. mun nañu def les trois premiers ñu jox ko parmi les trois premiers moom mu seet kan la siy jël pour le poste de directeur pour le poste par exemple de directeur, directeur général. général mhm. et si le Burkina le fait je ne sais pas pourquoi nous on peut le faire je sais que au Burkina maintenant ça fait et c'est ça et je pense que nit boobu su amul. suñ suñ ko jëlul sur mm-hmm. la base du parti ou de l'adhésion au parti quelque part tamit nit boobu ça lui donne les coudées franches parce que c'est un appel à candidature c'est un contrat d'objectif c'est un cahier de charge très précis moom dina gën a peut-être nekk à l'aise pour faire jouer quand même un peu un peu l'équilibre dinaa ñëwaat léegi parce que day am ñuy wax ni xëy na journalistes yi mën nañoo fippul seen bopp amal seen bopp di euh, dignité bi ak liberté bi pour def li nga xam ne ni moom la ñu war a def te kenn du leen ci noote euh, docteur Lamine Sarr acte bi nga xam ne Ousmane Sonko posé na ko te ñu gis ci taarix ni du guleet xëy na nag am na riir boo xam ne moom la àndal parce que Ousmane sonk la aussi am na keneen koo xam ne bu ko defoon xëy na du amee noonu riir ça aussi c'est la vérité euh, moom moo ciy gagné wala finalement lu ko yàqal parce que coow li finalement ni mu ko ni mu ko ni mu ko ni ko toppee. Mhm. est-ce que lu muy luy am njëriñ la pour moom wala lu koy yàqal la. waaw euh, Jatu dafa wax sànq lu lu am solo. si distinction pouvoir maanaam ñun bu ñuy jàngal suñu étudiants yi. les les les trois pouvoirs ñetti pouvoir yi maanaam ñetti ku yi ni mu ko traduire <laughs> te te illustration bu baax la mooy maanaam exécutif lépp jam si président li ko wër Euh, assemblée nationale moo yor législatif mhm. ak pouvoir judiciaire mhm. léegi nag si xelu nit ñi depuis mais loolu yàgg na si réew tubaab bi sax dañoo jox presse ne moom mooy ñeenteel bi mhm. waaw loolu mooy première erreur bi maanaam euh, lu tax presse wala média en général mënul nekk ñeenteel pouvoir bi parce que amul autorité politique te pouvoir yële dañu am autorité politique loolu moo tax ñu nekk ay pouvoir politique justement mais ñu ngi fàttali léegi ci histoire waaw très factuel. Mhm. président Blaye bi mu faloo. Mhm. ci guddi ga. Mhm. bi mu remercier militants yi presse bi la remercier mu ngoog mu gëm ni sax. presse bi contribuer nañ ci faloom. foofu lay ñëw est-ce que est-ce que glissement boobu amul ci yaakaar ni kon. doole beeg pouvoir la en foofu lay ñëw c'est-à-dire que même suñu politique yi sax dañoo jàpp loolu. dañoo jàpp ne média bi. te loolu moo am sax média dafa am role bu important gis nga ñetti pouvoir yi ñu wax. seen jéego seen biir si ñetti pouvoir ak jéego yi biir pouvoir bi. média bi moo koy fësal mooy jox ku nekk wàll ba nga xamante ne ni li nga bëgg wax ak li nga bëgg a fësal di nga ko mën loolu muy rôlu média mooy donc média au contraire dafa war a doon loo xamante ne mooy indi équilibre ci vie politique mm-hmm. léegi nag suñu réew yi comme ni nga ko ni ma waxee sànq suñu réew yi suñu état yi yàggul ba tey dañoo jàppee média déjà dañ koy wax jatu wax na ko sànq média d'état du du wax mm-hmm. média public la mm-hmm. maanaam mag yow ak ki nekk fongale mi ñoo ko moom donc tour état dañ ko war a détaché léegi nag si perception wu nit ñi si gëm-gëmu si gis-gisu nit ñi ak li ñu ak li ñu ak li ñu yaakaar média bu amul rek maanaam politique bi wala ñi ko wër mënuñu mënuñoo mënoo gañee mënoo def dara déedéet da nga ko war a utiliser ni nga ko war a utiliser média bi tamit nangu posture am nangu position maanaam nangu cëram mhm. cëram mooy lan tey jii nii Sonko bu waree wax ñu bàyyi ko mu wax Macky Sall bu waree wax ñu wax ko mu wax su ma waree wax man mii ñu bàyyi ma ma wax même bu ñu d'accordul ak man loolu mooy rôlu média premier rôle média loolu la donc équilibre bi foofu la koy indi bu pouvoir judiciaire maanaam bu juge yi waxee dara ñu ne ah juge bi kat juge yu Dakar kat wax na lii. Mhm. comme ça képp ku nekk Sénégal wax si di nga xam ne juge juge yu Dakar lii la wax si si bii dossier. Mhm. Mhm. loolu mooy rôle média équilibre boobu en particulier si période électorale parce que dafa sensible. loolu tax li tax may ñëw foofu mooy comme dañ am perception boobu comme dañu am ngëm-ngëm boobu moo tax bu suñu homme politique yi dañ jàpp bu ñu faluwul. média yi la bu ñu faloo it média yi la kaw Sonko bi da koy prouver euh, pour man yëfu Sonko bi dañ ko war dañ si war a am beneen jàngat mooy relation ak perception bi ñun sénégalais yi en particulier les hommes politiques am par rapport ak RTS mm-hmm. RTS euh, mooy rajo télévision bi nga xamante ne ni gouvernement yi jàll Sénégal yi yëpp wala alternance politique yi am yëpp ku si ñëw rek da ngay jàpp ne ba ngay nekkee opposition RTS moo tax faluwoo donc ba nga faloo rek dangay jàpp ne war nga mën a def loo xamante ni da lay nga des au pouvoir. nga xañ ñeneen ñi ñu fës nga ñu fës. te jot wax na ko sànq télé la boo xamante ne ñun dañoo nekkoon bitim réew am chance xëy na xool télévision bitim réew yi ñëw Sénégal xool RTS. mais dafa doon télé boo xamante ne boo xoolee si wàllum programme. ak mhm. wàllum yee nit ñi. Mhm. ñu ngi def jéego yu am solo. Mhm. yu jéego am solo problème bi feneen la mooy. li mu ko waxee sànq moom mooy. Euh, euh, euh, trajectoire politique bi nga xamante ne ni. télé bi mu ngi koy bëgg a jël. te loolu day dem ba indi frustration si classe politique yu mel ni Ousmane sonk ak ñeneen. dafa war a doon RTS donc dafa war a def de telle sorte que politicien bu ñu bu ñëw rek gis ci boppam. yeneen sensibilité mu am c'est ça. koo xamante ne sax day wax loo xamante ni ñun sénégalais d'accord ñu si sax. nga bàyyi ko mu wax. da ngay jël exemple li dëkk yi nga xamante ne moom lañ ne ñoom ñoo gën a nekk dëkk yi gën a nekk démocratie France États-Unis France Marine Le Pen a ngi nii. amul benn tere boo xam ne dañ koy tere mu wax. dañ koy invité si télé muy wax. ñi muy waxal aussi di ko poser ay questions. wala ñu invité beneen ko xamante ne bokkul ak moom parti muy wax ak moom si loo xamante ne luy jëmal réew mi kanam la. loolu nag mooy doxal réew. te système politique Sénégal nag tant que comprendre ñu ne parti politique yi dañ si am cër mais média bi dañ si am cër boo xamante ne mooy permettre li ma wax sànq équilibre parti politique yi. Mm-hmm. moo ñuy sonal. donc si lecture bi ma am si affaire Sonko bi mooy dañ si war a jàngat genre frustration politique également boo xamante ne xëy na son si Sonko la feeñ. xëy na man tamit su ma nekkoon conseil politique am du ko pour def ko waaw xëy na xëy na mënoon naa ko bañ a conseil mu def loolu euh, pour bañ a dugg dans les détails parce que mun naa jàpp ne am na partisan wu Sonko bu nekk Tambacounda wala Ziguinchor te RTS la am mhm. te xëy na image bi am na neneen nu mu koy traduire nu mu koy jàngatee moom de telle sorte que du ko arrangé moom nii moom di de la RTS même il peut avoir moo yaa voilà politique moo yaa mhm. donc na fa am ay partisans yoo xamante ne ni c'est normal ñu am ay convictions politiques mhm. donc ñooñu tamit mun na indi frustration si ñoom mhm. donc boo nekkee acteur politique tamit da nga war di gàddu da ngay mel ni borom kër yu bëri da koy gàddu ko muñ de telle sorte que te tey ji aussi li mu def nii xëy na comme ni ko ni ko ñu bëri peut-être souligner si si réaction yi xëy na moom tamit bu faloo si jamais une sénégalais fal ko est-ce que dina am relation wu ak RTS donc loolu tax ba nit ñi day gën a jaxase nit ñi waaw loolu daal la amoon vraiment jatu à quel moment la responsabilité dellu ci ñi nga xam ne ñooy journaliste parce que ñoom ñooy def information bi directeur bi lu mu kawe kawe du ñëw toog def journal télévisé bi mm. xëy na nag mën na teg pression benn yoon ñaari yoon mais bu ñëpp mànkoo ne dañuy changé xëy na dina changé am déet. waaw loolu mën na nekk je sais que man xam naa ay produits RTS Euh, peut-être mën naa wax ne ci produit yooyu man bokk naa ci yoo xam ne ils ont toujours mené le combat en solitaire fi muy mujjee mooy ne de toute façon Euh, il y benn euh, stratégie de mise au placard qui ne dit mmh. pas son am na fi aussi parce que euh, ba ay échappée individuelle mmh. euh, peut-être du ko mën a régler man je me rappelle quand j'étais secrétaire général du Synpics un moment euh, sollicité naa ay ñoom Alioune Tine te boobu Racine Talla nekkul DGRTS. Hmm. je pense que Babacar Diagne la woon d'ailleurs un moment man j'avais sollicité la société civile et autres ne leen il faut ñu def benn vaste coalition parce que au-delà de la liberté de presse liberté d'expression pour que le pluralisme quand même ñu ñu gën a dégg différentes sensibilités yi. Mmh. ak ñiy yëngu ci askan bi yépp war a taxaw parce que du rek les les partis politiques les associations de femmes dañuy def seen ay affaires duñu leen a couvrir ñeneen ñi parce que ñëpp dañu bëgg feeñ comme ni ma la wax indicateur la de réussite et même parfois de légitimité li ngay liggéey nga toog ñu gis ko par exemple euh, si mhm. si télé bi particulièrement journal télévisé surtout bu RTS nga bëgg leen nga bañ leen c'est une institution loo leen bañ bañ bu heure bi jotee mun nga am su tamit euh, dem xool mais y a des y a yoo xam ne il faut pas les laisser passer mhm. moi j'ai été stomaqué toog sama salon mhm. gis quand même ñuy fêter dans le journal télévisé ñuy souhaiter l'anniversaire joyeux anniversaire au président Macky Sall. <laughs> il y a mille de le lui souhaiter sans par exemple le faire passer par le journal télévisé je le trouvé comme un abus un abus de euh, de militantisme donc je sais que tout le monde euh, n'est n'est pas d'accord en en interne soit tu passes au placard soit tu finis par partir tu prends des disponibilités tu pars comme moi j'ai essayé de gérer la situation comme d'autres sont finalement partis dans d'autres sphères mais c'est plus compliqué que ça euh, les journalistes de la RTS moi j'en témoigne sans aucune vanité ils sont très professionnels mhm. ils savent faire mais et c'est ça le propre de la censure c'est d'installer l'autocensure mhm. il y a des choses la preuve euh, il y a des choses euh, c'est les gens eux-mêmes je pense parfois pour ne pas avoir de problème même anticipe ça c'est un c'est le premier niveau le premier niveau c'est l'autocensure et pourtant on abuse rapidement euh, l'un de mes premiers reportages politiques à l'époque j'ai couvert euh, une activité des femmes du Parti socialiste à l'époque dirigées euh, par Fatoumata Ka à l'époque mmh. Dieu et son âme euh, c'était le mouvement des femmes et c'était en prélude au congrès qui devait avoir le surlendemain je suis venue j'ai traité l'élément en 2 minutes 30 qui ma semble être format professionnel normal bi ma ñëwee j'ai lancé j'ai donné mon chapeau ma wax présentatrice du jour bi sama élément mi ngi nii 2 minutes 30 la sama beneen confrère bu ma magoon dafa tëb mu ne ma jattu tu vas nous avoir des tu vas nous amener des problèmes mi ngi nii même le mouvement des jeunes on a fait huit minutes toi tu viens tu fais deux minutes trente le mouvement des femmes sur l'honneur je lui ai bu fi Fatoumata Ka wootee ngeen paas ma ko Dieu et son âme elle n'a jamais appelé j'en ai déduit qu'il y a des mhm. on le fait on essaie d'anticiper mais finalement c'est pas tellement euh, c'est pas c'est pas bi nga xam ne dañu doon am d'ailleurs à l'époque on avait ministre de l'information ce n'est pas pareil que d'avoir un ministre de d'autres am na période yoo xam ne c'est vrai le ministre de l'information même oui. Euh, était presque un rédacteur en aussi c'est vrai mais je pense que dépassé nañu jamono boobu tey et puis euh, c'est une machine aussi Euh, le le journaliste il vient il fait son reportage mais c'est pas forcément le journaliste qui contrôle le conducteur qui ton élément peut passer comme ton élément ne peut, ne pas passer je prends Mansour Sow à témoin il m'écoute moi il est arrivé que je fasse des reportages format objectif hein, contenu objectif Mmh. Qu'on le fasse passer au journal de 13 heures à l'époque. Je dis bien à l'époque, c'est pas maintenant. Mais après euh, quelqu'un veut le reproduire dans le journal de 20 mais on vient déchirer la cassette en disant celle-là, elle est incontrôlable, on ne peut pas la contrôler, patati patata. Donc je pense que quand même, euh, sans, sans forcément déresponsabiliser les journalistes, je pense qu'il y a toute une organisation, il y a toute une machine qui est là aussi et qui peut étouffer les, les, les, les velléités euh, de travailler plus librement. Mais dans les propositions, Lamine Manguigno, dans les propositions, Diatou Degna, Euh, benn proposition bi nga def ci appel à candidature pour le poste de directeur pour mu doon koo xam ne ku neutre la ba a doon militant actif vraiment du parti bay nekk mm-hmm. maire fenn mm-hmm. nga xam ne da ci ciy taqrib mm-hmm. lan mooy proposition yi pour que mu changer définitivement journaliste yi fay nekk sax am gis ci seen bopp ci parce que xam naa ne am nañu yéene des fois couvrir yenn événements yi ah, seen i morom yi dañ koy couvrir mmh, voilà mmh, mmh. exactement compétence yi c'est c'est pas en doute mais peut-être que ñoom sax frustration léeg-léeg bañ a nekk ci yenn événements yi j'imagine que la RTS sous Babacar Diagne à l'époque quand le président Wade rentrait après des années d'exil et qu'il y avait une marée noire à l'aéroport Léopold Sédar Senghor au siège du Parti démocratique sénégalais j'imagine quand même les journalistes de la RTS puissent être de pas être de la partie tout comme tey xëy na am na ñuy am frustration ci bañ a nekk ci yenn ah événement oui bien sûr parce que après tout quand même c'est des c'est des journalistes ils sont intéressés par actualité dans sa globalité mais nu ma la ko waxee noonu man li ma yaakaar appel à candidature bi benn bunt la mais volonté politique bi aussi benn benn bunt la volonté politique bi mun na jóge ci président bi mun na jóge ci DG bi parce que même un DG partisan peut très bien expliquer à président de la république qu'est-ce qu'il gagnerait à ce que ñu gën a ubbi par exemple RTS parce que loolu tamit booy gouverner da ngay soxla baromètre mais say opposant sa société civile li ñu xalaat da nga koy bëgg aussi pour man outil la boo xam ne da lay dimbali aussi pour nga gën a mën a orienter sa action et ce serait bien que loolu Macky Sall par exemple toog ci saalam gis ay opposants ak parti au pouvoir ñuy débat di agiter ay idées loolu tamit baax na si moom je pense que baax na ci moom pour mu am benn vision globale baax na ci moom pour mu gën a mën a adapter intervention donc je pense que l'un dans l'autre au-delà de cette affaire euh, Sonko euh, moi je renouvelle toute ma sympathie vraiment à mes jeunes confrères de la RTS je pense que la RTS même au vu de la qualité de son programme au vu de la diversité de son offre au vu de son implantation au niveau national ne devait pas traîner benn faiblesse boo xam ne faiblesse boobu mooy benn sorte de frilosité boo xam ne ba baat boo yaakaar ne rek moom d'accordul moo xam société civile la société politique la wala syndicat la wala lan la baat boo yaakaar ne dégg ki euh, d'accordul rek nga étouffé ko du wax man je pense que loolu avant tout RTS moom moo ci gën a perte. docteur Lamine Sarr comme gars yi dafa mel ni ñoom ku ñëw doo soppeeku. Euh, xëy na bu ñu ko xeexee aussi est-ce que du dañuy jàpp ni. Euh, ci instruments yi leen xeexee la mu efficace ci sonal leen ba. ñu reproduire uh-huh. le même schéma de telle sorte que bu keneen ñëwee na dana ah lii sonaloon na ma uh-huh. efficace oon na pour xeex ma xaaral man tamit ma teg ko pour uh-huh. pour pour xeex keneen en fin de compte est-ce que du loolu ak conception bi nga xam ne moom la ñu am réellement ci média waaw waaw mun mun mun nañ ko liiree mun nañ ko gisee noonu ndax euh, comme ni ma la ko waxee sànq rek euh, RTS depuis sa création bi RTS nekk RTS ba tey ba nguur yi fi ñëw jàll ñëw ñëw yëpp jàll chaque fois même lecture ngay am da ngay naan RTS kat nguur gi la fi nekkal sénégalais lambda boo laajte tey di loolu la loolu la lay tontu donc loolu tamit dafay traduir xëy na ne opposant bu bu démb bu ñëwee tey ci pouvoir bi da koy da koy utiliser tamit comme comme mhm. instrument. Mhm. loolu nag mais dëggantaan xañ xañ sa noon mu feeñ. waaw est-ce que am na gain ou pas. Euh, à long terme ma mhm. sama gis-gis boog. si boo ko xoolee si long terme amul gain. ndax li muy jur moom mooy genre frustration politique boo xamante ne ne sa opposant daf koy am. mais société bi aussi daf koy gis. dañuy gedd. <laughs> rawatina ci contexte tey nga xam ne boo ko xañee feeñ fii dina feeñ feneen. mu ngoog opposition bi da koy gis loolu mën na feeñal ni xañ nañ ko feeñ à tel endroit. mu ngoog koy gis ñun ñii di voté dañ koy gis population en général daf koy gis. te gis boobu ñu nit ñi di ko gis arrangé wu la yow mii nga xamante ne ne yow yaa yoor nguur gi fas yéene tamit yoraat nguur gi parce que te dëkk rek te boo gisee dëkk mu mu avancé wala mu am mu am yenn jéego yi rek. c'est parce que dafa am relation boo xamante ne opposition ak parti politique parti au pouvoir am nañ ko rôle boobu nag liaison boobu souvent média daf si am daf si am cër bu mag parce que mooy moo leen di boole. Mhm. ku nekk mën a wax sa xalaat. Mhm. si njekk ak teraanga. loolu bu amul rek dafa am benn genre bu muy jur tey si yenn dëkk yi sax gis nañ loo xamante ne ne dafa jur lu gën a garaaw loolu moom mooy boo déggee ay coup d'état ay renversement de de président des fois loolu daf koy indi même militaires yi sax si dëkk yu ñu wër. bu ñu renverser président li ñuy njëkk a def mooy dem ci télé ba contrôler ko. Mhm. donc ñoom seen bopp militaire yi xam nañ importance bi tele ak tey jii ni internet am ci société. Mhm. donc yow boo bu bu ñu fekkee dañ mais tamit gëm naa ne xëy na culture politique la. Mhm. suñu culture politique sénégalaise ak en général africaine su. moo toll euh, foofu bu Afrique de l'Ouest moo toll foofu. waaye ñun waroon nañ dépasser kaw RTS doon li ñuy tuddee sànq média d'état RTS du média d'état média public bi la. ETS dafa waroon nekkal ñëpp ETS dafa waroon tax ba euh, waa AFP waa réew mi waa Sonko ñëpp di wax te du yàqal fo RTS e fonctionnement am. Mm-hmm. leneen li ma bëggoon wax souligner sànq mooy. bu fekkente ne euh, euh, législative yi ñu ñu ñu ñu commencé RTS e par exemple daf si am role boo xamante ne opposition daf koy gisee ne bi may bi législative yi ñëwee dafa en tout cas équilibré wul day li muy juri moom mooy te moom moo commencé am léegi. Euh, mouvement politique wala parti politique wala simplement un leader politique créer presse boppam. Mhm. créer média boppam mhm. fan. si internet bi te booboo gën a dangereux si réew. média de propagande parce que mhm. boobu pour état contrôler ko. dafa quasiment dafa metti parce que internet moo di loo xamante ne ni dox daja la. foofu la wax sa xalaat bi foofu la gën a bëree te pour nga contrôler ko ba mun koo censurer foofu tamit dafa metti donc pour bañ loolu yëpp. pour man état dafa war a fexe ba ubbi mhm. ubbi espace bi ñëpp parti politique yeeg association yi mouvement yi ku ñëw rek am loo wax mhm. ñu déglu la bu ñu d'accord ak yow ñu wax la bu ñu d'accord ak ñu wax la aussi mhm. mais jatu en 30 secondes loolu bu ngeen bu ma saana am ba ngeen wax ko directeur général bi lu mu ciy dégg moom li mu ciy dégg mooy warul ubbi wala lan la <laughs> euh, j'avoue que man gisuma dans dans les rédactions hein il y a eu des des, des des mouvements je me rappelle avec les Ibrahima Souleymane Ndiaye euh, dans l'affaire Maître Sey je pense un moment Habib Thiam Dieu et son âme mun na wax les les médias les journalistes de médias d'État ont un devoir de loyauté vis-à-vis mhm. de l'État mhm. je sais que à l'époque ça avait même généré un mémorandum qui a été élaboré au niveau de la rédaction li ma la wax ne c'est un système suñu mémorandum boobu kenn liiru ko biir RTS mais quand même quand même nañ ko yaa yaa eu des mais c'est plus profond que ça ñun dañu demoon ci assises nationales yi en tant que SYNPICS ba ñuy dem deux choses lañ fa yóbbu woon c'était un peu la question des fréquences parce que mm. Wade avait commencé à distribuer mm, des fréquences mm. à ses ministres et cetera à ses amis on a dit que il faut mettre le haut là parce que ça va générer du désordre te patrimoine yi comme ni mu wax léegi patrimoine euh, kii bi fréquence yi tamit c'est un patrimoine Bien national sûr. pour éviter ce désordre ñun dañu bëgg loolu ñu réglementer ko à partir d'un cahier de charge défini avec des critères clairs pour deuxième élément bi on y à allé déjà aux assises nationales moi j'y étais en tant que présidente de la commission communication mais la ñu fa yóbbu woon mooy le pluralisme médiatique le pluralisme démocratique à la RTS par exemple bokkoon na si pour wax leen ne loolu dafa yàgg dafa mel ni day bëgg a nekk ci ADN-u RTS léegi lu ñuy def ba changer ko de toute façon Sonko moom sas na boppam bu gë li mu gis ci RTS ba mere ko ba delloo ñu sunu micro loolu àlla kulli aal système bi mu wax ne bu ko yàlla mayee nguur gi moom day combattre le système la RTS fait partie des appareils idéologiques du système pour tout président bu fi mus ñëw ñun nag ñu ngi koy xaar au tournant bu de yàlla may na ko ba mu ñëw yàlla nañu yàlla may ñu fekke waaye ñun tamit dinañ def de la veille mhm. pour que moom RTS du ko def appareil idéologique <laughs> dina ubbi yaatal géew bi loolu la sas boppam je pense que son geste aussi on peut le lire positivement comme ça bien entendu euh, Lamine wax na ko politiquement il a perdu quand même tamit un canard rek pour wax ak ñeneen parce que qu'on le veuille ou pas la RTS quand même est bien disséminée dans tout le territoire mmh. national peut-être nos parents de Fongolembi RTS la ñuy dégg bref mais bon ça ça son c'est un acte souverain assumé je pense que aussi dañ ko ko war a nangul c'est sa liberté. suñu dernier point de discussion Lamine Yaku oui rapidement. Ah, par rapport ak RTS pour wala ne télé boo xamante ne dafa war a tamit góorgóorlu si ligne éditoriale bi. Mhm. dafa am ñaari exemple yoo xam boo xam ne soppeeku wu fa te war a soppeeku. Mhm. depuis ñi ñi nga xam ne ñoo gën ñoo a féetee xale depuis Abdou Diouf. Mhm. ba si Macky Sall mii. dafa am ñaari affaire yoo xam ne ba tey ñu ngi feeñ si RTS te xëy na nit ñi waxoon nañ ko si Abdoulaye Wade si Abdou Diouf ba foog ne daaneel nañ ko mais apparemment loolu mi nga am ba tey bi njëkk moom mooy. bu président di tukki wala muy wala muy mm-hmm. ñëw wala muy ñibbisi si tukki. Mm-hmm. dañ koy wane RTS. Mm-hmm. Euh, wane ministre yëpp ran wala yenn ministres yi ran di ko gadandu te loolu yëpp mënoon naa ñàkk ndax gan bu gan bu ñëw wala président bu tukki def naa ne Sénégal miis na ko léegi. beneen bi mooy euh, lecture bi ñuy def si décision yi ñu jël conseil des ministres. wala communiqué bi carrément communiqué ah, fois dama ko man je m'amuse parfois di ko chronométrer mais mun na durer facilement dix quinze minutes. dafa gudd de telle sorte que léegi sax ñaar a koy lire. waaw mm-hmm. a communiquer. mun nga dem journal officiel. xam li gouvernement bi wax. Mm-hmm. xam ni gouvernement bi fal. donc loolu yëpp dafa doon ay yoo xamante ne ni nga koy defaral nguur gi fi nekk te mënoon naa ñàkk. Mm-hmm. temps boobu par exemple mënoñ ko consacrer ay. reportage si opposition bi wala si société civile bi donc loolu lépp RTS daf si war a xalaataat bu baax. ñun loolu la jàngat boobu laa ci am. dernier point bi Lamine yaa koy introduire parce que xam naa ni yaa ngi ci amphithéâtre yi <laughs> donte yéen seen université virtuelle. waaw fa nga nekk en tant que enseignant yéen a ngi jàng yéen. ñu ngi jàng waaw yéen moom soxla leen campus social sax yéen. waaw ñun moom ñun xëy na loolu moo ñu loolu moo ñu loolu mooy suñu suñu fort. <laughs> Ah. même si soxla nañ suñu am am nañ suñu genre campus. mooy suñu espace numérique ouvert yi. Hmm. fi étudiants yi di daje pour def seen i examen seeni i cours. Hmm. seen i Euh, ñu ngi si presque ville yu bëri si département yu bëri waaye amuñu campus social nag comme comme bu dakaar wala bu Saint-Louis. mais terewul ci nga jàngee. parce que université virtuelle jànguloo ci. quand même parce que yàggul. Euh, lan moo tax ñu yegg tey ci situation wu xëy na sax yegg di séparer parce que loolu amu foon bu njëkk. tam mm-hmm. rek tàmbali nañu ko depuis quelques années di séparer année académique bi. Mm-hmm. ak année ak saison boo xam ne saison morte lay doon pour campus social bi. Mm-hmm. tëj ko génne étudiants yi. Mhm. ñu mën a ñëwaat est-ce que lu mën a mucc lamde ñu fàttali li tax ñu koy waxtaanee mooy li xew université Gaston Berger bu Saint-Louis. Mhm. coow na ba étudiants yi déclenché journée sans ticket JST comme ni ñu koy waxee. Mhm. jaxasoo am nag. saccagé nañu. aussi restaurant bi je pense que c'est ça la vérité. kilifa yi aussi décidé tëj campus social bi ne léegi nañu génn sax faf. seen bagage bu ñu am nañu ko génnee te dem parce que dañuy tëj ba octobre ñu door a ñëwaat eh, ban jàngat nga ci yow mi nga xam ne yaa nekk étudiant yi te di te di jàngale waaw euh, Abdoulaye li nga li li nga li nga laa dafa am man man ni ni ni samay collègue université virtuelle du Sénégal ñu si bëri nekkee ay produits wu euh, Gaston Berger justement mm-hmm. man mun naa ne entre guillemets produit université Dakar la ndax falaa falaa falaa jàngee balaa maa dem bitim réew waaye li nga wax nii dafa mës a am ci université bi man université Dakar loolu dañ ko dañ ko dañ ko fa mës a gis waaye université Saint-Louis li ma ci jàngat ci li fa am nii mooy ma sama gis-gis je me pose la question est-ce que autorité université Saint-Louis mm-hmm. ragaluñu résultat wu élection législative yi di ñëw parce que xam nañ ni université Sénégal yi mm-hmm. ay ay bërëb loo xam de socialisation la nit mm-hmm. ñi dañ fay daje étudiants yi dañu politique dugg na fa avec ses tares avec ses avantages mais politique dugg na ci université yi est-ce que bu ñu bàyyee étudiants yi ci université yi est-ce que tournure bi élection législative mën a jël est-ce que du bokk ci li mën a yàq université yi loolu dama koy dama koy jàngat ci ci li am beneen jàngat bi mooy euh, dañu war a lu xam ne université muy Cheikh Anta Diop di bu Bambey di bu di bu Ndar euh, ni mu ko waxee sànq nekkul ñëw rek jàng ñibbi jàng la. waaye tamit lie def socialisation la lieu boo xamante ne nit ñi dañ siy xamante di si di si di si saafwante ñii jële si ay xarit ñii jële si ay jabar ñii jële si ay àndandoo loolu buñ ko xeeb amoon na sax pavillon marié voilà mu ngoog université bi amoon na ko mm-hmm. loolu yëpp buñ ko xeeb dafa bokk si li xamante ne mooy tax étudiant bi fay jàngee ak ñi fay jàngale am appenissement am équilibre mm-hmm. Sénégal nag dañu am tendance des fois di fàtte loolu man sama gis-gisu bopp euh, su ma sañoon du ñu du ñu tëj université yi parce que am na université Dakar wala université Saint-Louis wala investé bu Bambey ni fay jàngee yëpp dëkkuñu. fi mm-hmm. université yi nekk. exactement. Mm-hmm. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk Ziguinchor di jàngi jee Ndar. donc boo tëjee investé bi rek xëy na amaguñu moyen wala amaguñu passe-passe wala amagu wala sa bëgguñu seen droit la aussi. ñibbi fi ñu dëkk. donc nga bàyyi université bi ubbi je pense que moo doonoon solution équilibre bi. mun naa comprendre également autorité yi si le fait que par exemple bu fekkee restaurant yi am na ñoo xam ne dañuy ñi fi ñi liggéey si restaurant yi tamit dañuy war di di di am congé restaurant dafa war di tëj mais pour man loolu équilibre la maanaam mun nañ di xool horaire bi par exemple. Mhm. mun nañ euh, organiser ak étudiants yi ak restaurant yi xool naka la ñu mën def ba restaurant bi bu ubbee tey bi ubbi suba. Mhm. de telle sorte que ñëpp. ñëpp am si équilibre comme ni mu nekkoon avant. Mhm. waaye tëj université. ak bi université dafa doon loo xamante ne ni pour man Sénégal waroon na dépasser loolu. parce que dëkk boo xamante ne ni euh, ñu bëri si dëkk yi ñu wër Afrique francophone en particulier fii lañ jàngee. te ba tey université Dakar par exemple dafa doon université boo xamante ne ni ñu bëri fii la ñuy indi seen i doom ngir ñu jàng comme université Ndar ñu waroon nañ dépasser loolu euh, ku nekk am na si responsabilité état am na responsabilité. parce que université tey jii nii université Ndar par exemple ak bi euh, recteur bi fa nekkoon nekkatu fa. Mm-hmm. instant bi nii je pense que université bi amagul pour l' instant au moment où on se parle amagul amagul recteur. Mm-hmm. loolu état am na ses responsabilités. responsabilité waa CROUS ak ñi nekk si université bi moom mooy ñu def de telle sorte que seen communication ak seen posture. Mm-hmm. mën a ànd ak étudiants yi. étudiants yi seen responsabilité ñu mën a xam ne li ñuy saccagé ji. voilà te it ñoom ñoo ko moom. te li koy defar seen i poos ak seen poosu waajur lay jóge ku si nekk si ñun rek. am nga responsabilité boo war a am si loolu. Mhm. léegi nag difficulté bi mooy ñu fexe de telle sorte que ku si nekk nga xam responsabilité boobu. Mhm. foofu nag la éducation avant université amee njëriñ tamit maanaam fexe ba nit ñi avant ñu dem université ñu xam lan la. Mhm. lu rôle am boo su ma dem université lan mooy sama taxawaay lan mooy sama warugar lan mooy sama cër ñu bëri nga dugg université. mais bu dinañ dem ba université ba pare te xamuñu sax cëru université xamuñu sax seen i seen i droit seen i devoir ci loolu yëpp tamit société bi en général daf si am importance. Mhm. fi may daanelee mooy violence bi ñuy gis si investé bi si université yi en général euh, dañ si war a bàyyi xel parce que pour man dafay traduir aussi violence yi société sénégalaise. Mhm. lecture boobu tamit dañ ko war a am ba xam ne ñii étudiants yi di grève di sànni ay xeer di saccager ay restaurant ëllëg ñoo nar yore ji réew mi. ñoo nar a defi di politique. Mhm. ñoo nar a def campagne doon ay député wala ay président bul leen encadré wul rek. Eh, da nga fàttewoo sujet bi ñuy waxtaanee léegi ci <laughs> RTS bi rek. bu ñu ko xarabee tey bu ñu ñëwee it. waaw mu la nga xam ne moom la ñu doon xarab. société bi moo moo. mu ngoog moo bindoon mais. Eh, jotul <laughs> image yi foo ko jëlee xëy na c'est dramatique parce que image yu xëy na rajaxe restaurant bi nga xam ne fa la ñu am na ñoo xam ne bu ñu tëjee restaurant yi amatuñu pexe. mais image yu aussi étudiants yi ci seen bopp dem ba ñu pexee ñu gis ñu taal ay mbana. Mm. pour toggal seen bopp. je mm. pense quand même mm. image boobu Sénégal war na ko. éviter quand même parce que ñaaw na sax ci gis-gis. Mm-hmm. dans tous les cas. yaa euh, man si sama gis-gis ñaari niveau la Lamine junj na ko sànq étudiants yi à la àll il faut ñu réinventer d'autres forme de lutte. rombal buntu uni buntu euh, Cheikh Anta Diop tali boobu yëpp fu nekk ma nga gajj gajj gajj gajj ndax ay ay pneu mhm. euh, bus ñu lakk te ñoom les pauvres ñoom ñooy xaar bus ba bëgg a tardé seen cour ñoom ñooy xaar bus ba du ñu mun a ñibbi il faut da seeni forme de lutte daal ñu réadapté ko ba du ñu punir sa bopp yow bu fekkee da ngay jàmbat xiif nga dem toj restaurant ba yow sax da ngay may ñeneen ñi argument pour ñu tëj ko wala ñu ne dañ koy xaar ba ñu defar ko bu ñu leen bëggee puni sax mu restaurant ba ñu mënoon defar peut-être ci une semaine dañ koy defar ci trois semaines yéen gën gën a tumranke donc lu ñu mermer je pense que am na lu ñu war a ñoŋal te man xaw ma mais defe naa dafa gën a war a am ay cadre de concertation je suis un peu de très loin li xew UCAD mais j'ai comme l'impression que UCAD direction ba fa nekk ak étudiants yi ñi ngi commencé di trouver ay plage yoo xam ne dañuy d'accord ci lii nii lay doxee ak nii lay doxee je pense que concertation bi ñi yore ñooñu ay pédagogue lañu ñu yore université yi ay jàngale nañu xam nañ ne xale yi phase bi ñu nekk at bi ñu nekk duñu bëgg aussi ku leen taxañ du ñu bëgg tamit autorité étouffé leen loolu nag boo ko xamee danga koy contourner si ngeen di waxtaan ngeen trouver ay plage de discussion ngeen di mun a euh, bâtir ay consensus léegi tëj université yi man xaw ma lu xew man dëkkoon naa Claudel <laughs> dëkkoon naa annexe 1 et y un épurement entre guillemets naturel hein ñi nga xam ne très souvent ils son bien seen kër. Mhm. dara manqué wu leen am nañ fa seen confort yaatu nañu dañ lay romb ak seen ay valise di diri di dem. ñibbi dem vacances yi. si si am na ay moments yoo xam ne couloir yi dafay wéete a wéet ba. bien sûr ñi ñi ñi des si ñi des si bloc yi dañuy mujj sax xamante bu dee xamante wu ñu woon année bi tellement que dañuy wéet. Mhm. donc ñi mën a dem yaatu seen kër mhm. dinañ dem. mais ñi nekkul dans des conditions de partir même bu fekkee yow euh, fii nga dëkk par exemple ginnaaw raay Pikine wala Géejawaay wala Patte d'Oie wala sax kii te yow boo ñibbee seen kër solution ba nga fa amoon mooy nga teg sa matelas ci benn koñ ci salle bi wala nga teg sa matelas ci couloir bi mhm. c'est légitime nga bëgg a garder sa néeg parce que da nga jàng aussi ba ba ba année bi jeex war nañ ko encadrer gars je suis d'accord mais tëj noonu tamit systématiquement fermer université systématiquement ñëpp dem sànq ñu ngi ko doon junj peut-être étudiant bi nekk euh, Bakel wala étudiante bi nga xam ne Bakel la jóge soo ko bàyyee ci campus bi peut-être dina dem benn fast food liggéey fa dara am dara wala mu seet benn petite activité je ne sais pas mais je mhm. pense que tamit tëj bi radicalement campus social tëj yëpp fay c'est une solution facile pour régler les abus parce que nañu waxante dëgg yaayu des abus man dëkkoon naa del xam naa ne yàq courant mais xëy na loolu abus bi yu ngay wax je pense que c'est des questions dépassées enfin pour l'essentiel ci campus par exemple social université Cheikh Anta Diop parce que euh, dëgg tamit moo neex pour la première fois je pense que université Cheikh Anta Diop amoon directeur COUD boo xam ne ba muy dem étudiants yi ci seen bopp. dañu ko tàccu. oui tungoom ko qui des espaces verts ak yëpp. voilà exactement je pense que c'est possible. de pacifier l'espace universitaire. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. étudiants yi nangu ko. administrateurs yi aussi nangu ko mais on a l'impression que euh, université Gaston Berger quand même depuis quelques années. ah oui il y a une rupture. Ah, entre oui. étudiants yi ak ñi nga xam ne ñoo leen dem nañu ba bu yàggul. ki nga xam ne nekkoon na fa recteur étudiants yi déclaré ko non grata ci université bi. professeur Baydalaay Kan ne bëggatuñu koo gis ci université te ku ne xam na ni eh, jàngalekat bu borom xam-xam la jàngalekat la encadreur la formateur la mais yooyu xëy na bu ñu demee ba egg ci je pense que war nañu questionné waat suñu suñu modèle bi nga xam ne. moom la ñu am mooy rek xam nga université. société bi la. Mm-hmm. étudiants yi. société sénégalaise la ñu jóge ci ay famille sénégalaise la ñu jóge mhm. boo xoolee Sénégal de façon globale dëkk bi fu mu nekk nii groupe d'intérêt ak rapport de force rek moo am ku rapport de force bi favorable rek am nga li nga bëgg les étudiants xam nañ ko ils se son constitués te léegi force lañu. surtout université mais autorité politique yi jotu dañuy woote pour. ñu génnee politique ci université bi di woote est-ce que parce que docteur Lamine Sarr dafa junj léegi nii mm. xëy na lié élection yi étudiants yi ba camp booñ leen fekk ci campus bi mm-hmm. mais est-ce que politique wax naa mën a tax ñu ñu ñu am ay stratégie pour université man yaakaar yaakaaruma ko mooy li ma wax université tarixa yi nekk ci dëkk bi ñoo nekk université politiciens yi nekk fii ci biti nii ci ginnaaw ñoo nekk université la société en miniature te li mu wax lieu d'apprentissage la am na ñu fi servir éminemment Sénégal sur le plan politique université la ñu jànge politique jàngewuñ ko seen kër jàngewuñ ko feneen li bon kay mooy instrumentaliser appartenance politique yi ba étudiants yi di jëlante ay machette ak ay jaasi loolu étudiants yi am na luñ ci war a def euh, politiciens yi am na euh, lu luñ ci war a def li ma euh, gëm daal te wóor te wóor université il faut ñu repenser ko te man dama yaakaar ne repenser université c'est arrêter aussi la massification parce que massification bu amee problème université Gaston Berger havre de paix la woon man sama frère mi ngi may dégg Karim Cissé nekk na fa 10 ans directeur du CROUS presque amul woon tension sociale parce que les effectifs étaient contrôlables effectifs contrôlables ça veut dire repas amélioré ça veut dire accessibilité de l'eau ça veut dire accessibilité à l'internet ça veut dire accessibilité au cyber de l'université léegi loolu yëpp rang la parce que y a une surpopulation de l'université de Saint-Louis ça crée ça génère forcément de la tension te man parfois damay gis moi j'ai été choquée de voir les étudiants dem jël des eaux usées ñoo sotti bureau recteur bi c'est une forme violente <laughs> psychologiquement je trouve que c'est c'est c'est très très violent je pense que dañu war a repenser l'université j'ai pas envie de parler comme les politiciens parce que je ne sais pas le fait quand même tamit que tous nos bacheliers systématiquement leur point de chute c'est l'université bu feesee ñu wàññi ci école privée yi commerciale kii euh, pense que je pense que il faut qu'on commence à dégorger un peu le système même à partir du BFM ñi bëgg a def menuiserie war nañ leen mën a commencer c'est vrai ñu ngi koy commencer di ko def mm. euh, école de formation professionnel yi ak licence pro yeeg yooyu je pense que il faut ñu commencer ko parce que tant que on aura des sureffectifs à l'université il y forcément des problèmes parce que sureffectif dafa am ay ay incidences incidence bi mooy ne condition de vie yi dootul demeti noonu condition de vie yi bu demetul noonu les étudiants sont organisés hmm. pour râler ils vont râler hmm. <laughs> l'administration essaie tant bien que mal de s'ajuster il y a des problèmes et on a laissé tellement faire la situation que les étudiants finalement boo xoolee dans les différents campus man je pense que c'est les étudiants qui ont la réalité du pouvoir et pourtant effort yi ñu def je pense que création unité virtuelle. et puis ci yooyu la bokk. et puis il faut qu'on il faut il faut qu'on arrête dans ce pays aussi c'est de la légèreté je trouve que le recteur de l'université de Saint-Louis dem depuis. man je pense que un recteur mhm. dafa stratégique am importance ci université ba nga xam ne mhm. ñaari piyon ngay yore mhm. bii bu demee nga teg bii le même jour mais bàyyi flottement bi ak yooyu yëpp je pense que euh, da c'est pas un bon signal c'est pas un bon signal pour la paix à l'université c'est pas un bon signal au niveau pédagogique je pense que c'est des c'est quand même assez léger d'enlever un recteur et puis de rester attendre pour, euh, pour trouver un autre. On enlève un recteur parce qu'on a trouvé un autre qui peut le remplacer valablement. Et je pense aussi mmh. que il faut, il faut le dire aussi, mmh. je précise juste que l'Université Alioune Diop de Bambey aussi, on a vu le communiqué, ñoom it fermer le campus hein. Et Université Cheikh Anta Diop je pense que euh, am nañu recteur mais il y a tellement de conflits quand même entre recteur bi ak euh, yenn enseignants yi entre yenn syndicats yi sax que parfois quand on se pose des questions est-ce que communauté universitaire bi la ñëpp parce que hmm. loolu daawul am quand ah, daan am grève yoo xam ne enseignants yi dinañu grève mais quand même conflit frontal ouvert nii entre l'autorité de l'université c'est un système de rapport euh, de force en fait léegi je hmm. pense que yooyu quand hmm. lu bees la loo xam ne ni lu ñuy gis la tey ci nit ñuy défier l'autorité de l'université à mm. travers le que daawul am quand même. Euh, waaw pour man loolu yëpp dafay traduire loolu yëpp dafay wax na ko jotu euh, jatu junne ñu ko sànq dafay traduire tamit fi réew mi toll. Mm. maanaam fi ñu toll ni Sénégal on a l' impression lépp rapport de force la mm. entre les hommes politiques même si biir kër yi sax mm-hmm. <laughs> ngeen baal ma si wax ji on a l' impression boobu ngay am su suñu société moo moo ndaw société boo xam ne léegi mm-hmm. euh, jaay doole wala wala mbëkkante xëccoo waaw xëccoo mm-hmm. dafa doon loo xamante ne dafa commencé di am doole si ñun massification bi muy wax nii benn élément bu important la si bu ñu buggee réglementer bu ñu buggee mhm. régler suñu problème université yi mhm. te li gën a paradoxal si mbir mi moom mooy euh, boo dégloo boo dégloo instance internationale yi yu si mel ay banque mondiale ak yooyu te in côté boobu xëy na wax nañ si dëgg Sénégal on n'a pas assez de bacheliers maanaam étudiants yi am bac Sénégal par rapport ak population bi par rapport ak nombre d'élèves yi bëriwut léegi imagineel kon bu ñu amoon nombre bi gën a mag bu gën a yaat par rapport ak bachelier yi fan la leen dugal donc ça veut dire que problème bi feneen la euh, bu boo defee Gaston Berger mu commencé dox parce que y un nombre restreint. université d'excellence université d'excellence mhm. nga def ko mu dox. sa prochaine étape mooy comme def naa ko Ndar tee ma ko def Jurbel mhm. wala maatam mhm. xool ba xam boo ko defee noonu defaat ko noonu rek xëy na doo am problème massification boobu nga injecté li nga war a injecté. te li si gën a garaaw tamit mooy gouvernement bu ñëw ne la éducation wala enseignement supérieur moom mooy quarante 40 45 pour cent du budget de l'État te des fois les gens ont l'impression sénégalais dañuy gis ne xëy na du feeñ si université yi ndax grève yi wala problème yi ñu am si affaire u restaurant yeeg yooyu donc loolu dafay junju ne dafay wane ne am na foo xamante ne ni suñu état ak suñu responsable universitaires yi ñun ñii ñun ñii di jàngale ci lañ bokk tamit am nañ ci responsabilité étudiants yi tamit si lañ bokk am na loo xamante ne réussir uñu ko te moom la communauté universitaire yi gën a mag tey jii yi nga xam université yi gën a mag si àdduna bi li ñu réussir moom mooy li mu wax sànq moom mooy former une communauté de telle sorte que constamment da ngeen di dialoguer mm-hmm. étudiants yi bu ñu xalaatee dara ne ñun kat lii lañ xalaat ne boo leen ko defee xëy na mun na améliorer suñu jàngat ñu xalaat ni ah lii war na mën a nekk lii mënul nekk parce que mënu mënuñu ko def loolu mooy dox université université réew mu ndaw la mm-hmm. Mm-hmm. tant que jëluñu perception boobu tant que jëluñu euh, euh, sénégalais yi xalaatuñu ko noonu xalaatuñu weesoo noonu rek du sotti waaw léegi li ma li ma li ma yaakaar daal moom mooy euh, muy Bambey di Saint-Louis vraiment ñu xool naka lañ mën a waxtaanee seen biir ba harmoniser position yi étudiants yi delloo si seen xel CROUS tamit delloo si xelam si yenn position yi ñu jokkalante xam ne étudiant bu génn Saint-Louis wala étudiant bu génn jurbel ba doon tekki dara ëllëg dañ naan sag sagu sag université boobu la mhm. sagu réew mi la waa sag université boobu la mhm. tant que ñu ngi am perception boobu rek xëy am naa yaakaar ni mun nañ am solution si je pense aussi que peut-être ñun ñi si biti dañu seetaan tamit université mhm. ba mu sonn mhm. y tellement de personnes dans l'espace public yoo xam ne mun nañu def ay offre de médiation mhm. nekk tampon diggante étudiant administration assurer suivi des accords des recommandations je pense que peut-être ñi nga xam ne dañu am compétence en médiation sociale dans les techniques de négociation et cetera peut-être aussi léeg-léeg dañu war a def offre de service au non de la citoyenneté vraiment pour aider un peu aussi communauté ah. universitaire ah. parce que rapport de force yi quand même ah. bare na lool dafa am ko doon tooñ sànq ci li nga wax noonu ci dañu seetaan université bi coow li ne ko am ko doon wax ci <laughs> benn waxtaan ne nañu woo Alioune Tine pour mu def médiation mais je pense <laughs> il y a des gens que dont <laughs> le métier c'est de vraiment de faire des négociations sociales bien sûr bien sûr peut-être que jotaay bi waroon nañu fee mën a am waa Sanar une mm-hmm. association quand même qui regroupe les anciens mm-hmm. et je pense que qui jouait ce rôle de tampon mm-hmm. et que di waxtaan ak xale yi mais il semble quand même que am na distance am na mm-hmm. rupture ba tax na tey xëy na lu bëri mm-hmm. euh, peut-être euh, ñu seetaan ko mu yegg si fii mm-hmm. mais je pense que ñëpp war nañ cee mën a wax ba mu taxawaat parce que c'est vrai université Gaston Berger université d'excellence la woon bi muy door a ubbi ñi rawoon ñoom ñoo fa dem donc loolu xëy na waruñu woon waruñu woon a fexe ba mu ba mu ba mu jóge fi tey parce que lii xëy na lu koy yàq la te defe naa ne du njëriñu kenn évidemment réew ak élection mooy dox. Mhm. parce que élection mooy tànn ay njiit. Mhm. est-ce que war nañoo dem ci réew ba ragal élection. ba bu ñu ne élection day am rek. Mhm. pexe. gaspax piège. <laughs> chose trappe. tegal banaana. Mm. xott mm. banaana. Mm. bon yooyu defe naa war nañ koo dépasser. jotul on était très heureux de. <laughs> merci Ablaye <laughs> tout le plaisir est pour moi et je te remercie. de faire sortir les jeunes mais mais attends non pare guñu parce que c' était sa première télé yow laay bàyyi nga. non non c' bien moi je le dis euh, ñi may déglu dama koy dama dama koy wax léeg-léeg damay envoyé ay SMS aussi. Euh, il faut ñun tamit ñu génn sunu confort tuuti ñun média yi. di renouveler ressources aussi se renouvellent parce que c'est d'autres regards, c'est d'autres perspectives et c'est ça qui est, qui, Bien est, sûr. qui important pour nous journalistes mais également aussi pour euh, l'opinion. Hein? Il faudra bien qu'on accepte de revoir nos carnets <laughs> d'adresses aussi, d'injecter et de donner une Bien opportunité aussi aux jeunes qui sont porteurs de connaissances également, de les amener parce qu'en même temps aussi, on renvoie un modèle à, d'autres jeunes. Bien mhm. de diplômés, d'agrégés, de docteurs. Il euh, vraiment la ci jotaay bi aussi. voilà di la remercier di la gërëm bu baax. Euh, bi nga ma woowee di ma émission bi si si wolof lañ koy wax. <laughs> ma fàttaliku ne dañoo nàmp séeréer. Mm. si si wolof lañ yaroo parce que Dakar lañ yaroo mm. waaye. waaw ah, lépp luñ fi wax daal ñu ngi c'est ça mhm. lépp fi wax daal lu lu lu ma lu lu jekkul wala nekkuloon suñu di la waaw ah, di leen remercier di leen di leen te di wax ne ñun tamit universitaires yi dañoo war a fexe tamit góorgóorlu tamit génn suñu cadre universitaire d'abord tour d'ivoire mhm. voilà dañoo tour tour d'ivoire comme on di fësal xëy na suñu astuut bi ñu xam di fësal tamit suñu gis-gis xëy na nit ñi dinañ d'accord ak ñun bañ a d'accord waaye au moins nit ñi xam tamit li ñu ni ñu gisee réew mi xëy na loolu dina bokk si li tax tension bi ak coow yëpp xaw a xaw a wàññeeku donc sama euh, xam naa ñu si bëri fi ma nekk par exemple UVS ñu si bëri ñu ngi góorgóorlu si loolu. Mm-hmm. Euh, di leen remercier yéen médias yi aussi en particulier TFM bi ngeen ñu invité tey pour ñu pour ak yéen moment bi di leen remercier bu baax a baax. bien représenté l'université virtuelle du Sénégal je pense que c'est important aussi. UVS <laughs> ñu ngi def liggéey bu am solo parce que étudiants yi ñu formé bëri nañu. mais ñu wax moyen université virtuelle soo koy wax peut-être moyen technologique yi foog mu topp euh, espace numérique ouvert yi foog ñu am li nga xam ne moom la ñu war a jàngee mais je pense que comme yenn lycée technique yi nga xam ne jot nañ fi am ay reportage lycée technique yoo xam ne xale yi amuñ sax clé bu ñuy démonter un petit je pense que yooyu aussi ay gàllankoor la yoo xam ne UVS aussi waru ko trainer ah ci wàllu technologie appareil yeeg yooyu ordinateur xale yi mën koo am pour pour doxal surtout que Covid jaar na fii ñu yaakaar ni sax technologie ci lañ war a jaaree profitoo ci pour utiliser ko ci njàng mi quand même ma bàyyi la nga def plaidoyer pour UVS waaw gis nga waaw di leen di leen gërëm di leen remercier ñoom ñëpp surtout personnel administratif yi nga xam te ñoo nekk si ginnaaw ñun enseignants yi ñu ñu mën a jàngale euh, université bu jeune la mhm. yàggut waaye adduna bi fi mu tër fi mu tëddoo nii jàpp nañ ne xëy na si loolu lañ jëm mhm. si jàngum bu li tubaab di wax enseignement hybride tey jii nga jàngee si écran gannaaw suba nga dem amphithéâtre mhm. gëm naa ne adduna bi euh, fi ñu jëm si si si si loolu si loolu lañ jëm waaw UVS nag université bu jeune li ma ko waxee bëri na étudiant tey jii nii ginnaaw UCAD ñoo ëpp étudiant si réew mi mhm. donc loolu tamit dafay bokk tey si li nga xam te état bi war na ko xalaat pour encadrer ñu pour pousser ñu Euh, mbirum ordinateur yi ren ji euh, waa li ñuy tuddee waa promotion neuf mooy ñi amoon bac daaw ba commencé ren euh, ñoom ñëpp macha allah ñu si bëri si chiffres yi ñu mujjee jot daal ñu si bëri macha allah jot nañ seen ordinateur ba nit ñi sax commencé nañ cours ak ak ñoom. Mm-hmm. donc am nañ ay avancées yu bëri yu si am ENO yi ay avancées la ñu ngi siy ubbi yu bëri. waaw ñu gën a góorgóorlu si loolu ñun enseignants yi état bi gën a góorgóorlu étudiants yi aussi gën a góorgóorlu si xam ne seen àdduna tamit noonu lay noonu lay tëjee. maanaam njàng boo xamante ne ni euh, pas forcément di nga jàkkaarloo ak enseignant physiquement. waaw ak hmm. adduna bee tëralee noonu donc ñun ñëpp ñu commencé tamit di réfléchir noonu. waaw ñu euh, je pense que su ma toogee fii di wax pour état jox ñu ay moyens état di <laughs> ministre bi dina ma dina am lu mu ma wax waaye ñun ñëpp xam nañ situation bi nu mu demee hmm. waaw ñu ngi góorgóorlu ak li ñu mën nag wax dëgg yàlla ñu ngi jéem a def liggéey ni ñu ko ni ñu ko ni ñu ko ni ñu ko ni ñu ko mënee waaye suñu étudiants tamit yu xarañ yu yu bëgg li ñuy def tamit Euh, njëlbeen gi yombul woon. Mhm. waaye gëm naa ne fi ñu toll nii am nañ ay étudiants yoo xam ne ñu ngi commencé comprendre UVS ak rôle am te espace numérique ouvert yi euh, man Canada laa nekkoon am na université virtuelle. Mhm. mais amul notion espace numérique ouvert ñoom c'est carrément virtuel donc espace numérique ouvert bi. waa UVS ñoo ko xalaat def ko donc création c'est pour pour wane ne ñun Sénégal africain am na loo xam ne mun nañ ko adapté suñu réalité ba mu dox mhm. espace numérique ouvert yi amul Canada amul feneen Sénégal ñoo ko fi njëkk a def te am yeneen dëkk yoo xam ne ñoo ngi si sous région bi dañuy ñëw si ñun di jàngat pour def ko seen dëkk mhm. loolu day wane ne bu ñu toogee xalaat sottante xam-xam rek mhm. mun nañ am lu bari si réew en particulier ñi nga xamante ne dañ leen di jàngal Et puis il y a beaucoup de jeunes enseignants quand même euh, et ci Université virtuelle du Sénégal. ñuy remercier ñëpp merci. merci beaucoup docteur Lamine Sarr. Diatou Cissé merci beaucoup. Ah, ñu ngi lay gërëm bu baax ci yitte bi. xat-xat la woon nag waaye xam nga bu kilifa gi ñibbisi ci dëkk bi ah nga bokk ak moom yoon. foog nga xaar <laughs> voilà président Macky Sall defe naa bi ñuy waaj a tàmbali suñu jotaay la waroon a ñibbisi. bon euh, moom mooy prioritaire ci yoonu. Ah. route aéroport de Yoff. Mm-hmm. donc ce qui fait que très compliqué egg si mais def nañu suñu jotaay di leen gërëm di leen sant incha allah programme télévision Futurs Médias di continuer ëllëg ba ëllëg aussi soir de campagne euh, ak Pape nga Ndiaye incha allah jërëjëf ba beneen yoon merci tànge assemblée nationale bi ñu ko joyante musiba am ñu leen di campagne bi ak xel